il y a beaucoup de man je vais en citer tey euh, mënuñu wax un présidentiable ci biir euh, Benno te waxuñu tey turu peut-être soxna Aminata Mbengue Ndiaye di nga wax turu l'ancien premier ministre euh, Mohamed Boun Abdallah Dionne Abdoulaye Daouda Diallo Félix Antoine Diome Amadou Ba daanaka bëri nañ ñi nga xamante ne ñu ngi tudd seen tur mais ces derniers temps on entend que Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba et les autres ndax ñoom ñaar seen dualité bi nga xam ne yàgg nañ koo am ci biir gouvernement bi sax bi euh, kenn ki nekk affaires étrangères kenn ki nekk euh, finance daanaka ñoom ñaar dañ doon wax ne ñaari kuy lañ mënatuñu bokk mbalka ndax président du génnee kenn bàyyi kenn ndax loolu itam nekkul di wéy ba jamono ji président war a tànn successeur am xam nga fu mu toll nii jamono jii président euh, war a tànnee président rek moo xam lu tax mu xaar ba waxtu wii pour mu mun a tànn lii mu war a tànn mhm. mais xam naa ni moom ci boppam nekk am na dilemme parce que euh, euh, choix bi warul nekk un choix de cœur dafa war a nekk un choix légitime euh, lu tax ma ne un choix légitime parce que dafa am euh, tu vous savez l'APR ni ñu ko constitué am na tey ñoo xamante ne tey soo leen jëloon. ñu ngi xaar rek am na ay responsables yoo xam ne dañu ne pat noppi. ne man du ma nekk fii sax naan dama bëgg damay toog rek ba xaar bés bu nee diw la man ma dem ak samay nit. mais loolu kañ ñun ngañ dégg nañ am na tur yoo xam ne sax ñoom nee nañ ñoom pare nañ. waaw eh, wut nañ sax turu turu coalition yi nga xamante ne xëy na moom la ñu. parce que wax nañu dëgg parce que aussi xam nga tey dafa mel comme sa kër nga am sa kër tey nga am say doom. Mhm. doom yi toppante nga am ñetti doom. Mhm. ku ci nekk kii am 18 ans kii am 22 ans kii am 24 ans. Mhm. ñoom ñett ñëpp ay góor lañu. mais dans le normes mais su fekkee ni ordre hiérarchique rek ngay xool. Mhm. mais ki am vingt quatre ans kooku. mooy taaw mooy taaw. waaw mais tey su fekkee ne da nga bëgg a jël taaw bi. def ko le plus irresponsable de la famille. ah mais mais tamit mais foofu noonu. su nekkee euh, loolu le président dana xool ndax côté boobu du du du juum ndax su ñu nee euh, le choix il doit d' abord être nit koo xamante ne euh, ku dëggu déjà. Mhm. koo xamante ne kàddi démbam ak kàddi tayam. mënuñu koo vaar. Mhm. entre guillemets donte difficile na tamit ñu bañ a vaar benn politicien. ñaareel mooy koo xamante ne il faudra quand même l'unanimité devant la jeunesse koo xamante ne tey eh, su taxawee ci kanamu ndaw ñi di wax xëy na peut ñi mën nañ bañ a ànd ak moom di dinañ ko déglu par son charisme ak taxawaay nga xamante ne amee na ko mais keneen kenn koo xamante aussi biir euh, Benno Bokk Yaakaar suñ ne diw kenn du ne ah du ma jiiteeg euh, kii waru nekk sama kanam mais choix boobu genre trois critères yooyu ndax instant yi am na ci profil. yoo xam ne réunir a biir biir Benno xam nga euh, ñetti critères yooyu dafay compliqué pour mu réunir wu euh, au niveau de Benno euh, jamono yi ñu toll mhm. parce que dañu nourrir ambition pendant très longtemps ñu dem ba ci benn moment boo xamante ne mbëkk rek moo ci des ñoom kuy boo leen tegal rek dañ ko war a mbëkk mu daanu ñoom ñu taxaw. ñu on a vu le cas de Nguy Ndiaye. waaw pour ne pas le citer. on a loolu sax nañ mën a wax moo taxoon ñu écarté quoi. Mhm. dafa leer mais euh, man après dama ci bari ay xarit su ma waxee nag daañu yaakaar dama kii mais waxuma yàlla xam na ni waxuma damay wax rek de manière objective. Mhm. li may jël li may wax euh, Aly Ngouille ci ñaari ñaari victoire yi mu am yëpp. muy victoire bu 2014 bi ci élection locale yi. Mhm. victoire bu historique la parce que dafa gagné ki nga xamante ni moo doon chef de cabinet directeur de cabinet du président sortant Abdoulaye Wade mhm. muy Habib Sy. si Habib Sy effectivement ñu jógee foofu ak doole bi kii am yëpp Pastef am mu gagné fa. mu fa mais tamit bi mu demee bi mu demee bi mu demee kii ñàkk na bi mu demee <laughs> bi mu demee. Euh, législatif ñàkk na commune bi mu demee législatif ñàkk na commune am. Mhm. mais. est-ce que impacté na département bi loolu moo jar a seet parce que. nga ñëw non non attends je rectifie il a il a il a il a voilà. il a gagné je rectifie. waaw exactement je rectifie donc nga mm-hmm. xool ñetti nga xool séquence yooyu ñetti séquence yooyu. Mm-hmm. da ngay xamante ni mbër dëgg la. tey li mu gagné ci Linguère su ko responsable yi gagné woon Dakar leneen la ñuy wax assemblée nationale. kon du ñu teg fii naan ñaar ngeen ñu ëppale wala ñett ngeen ñu ëppale donc Aly Ngouille Ndiaye am na lu muy représenté ci ci ci parti bi du ko ndaw tey gëm naa ni moyen yooyu noonu yi ñu am suñ ko ko joxoon dina def lu bëree bëri bëri bëri ci <laughs> ànduma ak moom waaw léegi léegi léegi léegi kon comme vous avez parlé de dilemme ñun moom la ñuy so moom la ñuy choisir mais léegi kon euh, ñi nga xamante ne tey tamit euh, je peux dire que seen carrière moo ngi en jeu Aly Ngouille Ndiaye certes il n'est il n'est pas si jeune que pas aussi vieux daanaka politique moo ngi moo ngi ci kanamam tey ndax mënul inspiré wu ci exemple ku ci xam ku ci mel ni euh, Idrissa Seck peut-être moom bi nga xamante ne musul làkk ne damay nekk candidat ba mu ko waxee sax daanaka moo ni jafe-jafe yi nga xamante ne moom la amoon au sein du euh, du e. mu toog wax ak président ne ko jamono ji vraiment je respecterai le choix que mais man personnellement gis naa ne fi mu toll nii damaa bëgg dem mutali sama bopp ndax tollu ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk biir biir euh, Benno te jàpp nañu ñoom ils sont présidentiables ba ñu def comme waa yeewu ñu demal seen bopp. xam nga demal sa bopp fu mu toll nii baax na mais demal sa bopp dafa am condition yoo xam ne ngay demalee sa bopp ñoom ñëpp ku ci demal sa bopp fu mu toll nii. ah soo deful ndànk wiiw doo ko dégg. regrouper seen force mooy seen avantage parce que daañu dajeek kuy boo xamante ne ci yoon waxuma la soo ko mbëkkee mais moom su la mbëkkee nga yaakaar ni ndaraan la dal sa kaw <laughs> su dalee sa soo dalee ci kawam. Mhm. nga xam ni dal nga ci kaw guy. kon kooku ku mel noonu regrouper les force te la famille libérale mooy seen avantage. maanaam Idrissa Idrissa quoi qu'on puisse dire même génn na génn na peut-être à un certain moment mais je pense que su fekkoon ni président de la République peut-être nag décision bi man damay dégg ñu naan way président jëloon na décision bi bu yàgg mais je pense que su fekkoon ni président par exemple contexte yi ñëwuloon ba lii changé président su amoon intention bañ a présenté wu ci ci waxtaanoon ak Idrissa Idrissa waroon na mun a toog ci biir te dafa doon légitime aussi. pour mu kii ko parce que famille libérale la ñoom ñëpp ñoo bokk Idrissa euh, monsieur Idrissa sec monsieur le président de la République euh, Macky Sall. monsieur Karim Wade mais ñoom ñëpp suñu waxtaanee war nañoo juboo mais suñu toogee fii di kii kii moomu gën kii moomu gën duñu duñu am dara. mais tamit am na antécédent yi nga xamante ne moo fi am ndax retrouvaille boobu aussi quoi qu'on puisse dire tey a été quand même euh, victime de de entre guillemets Karim de l'explosion de Karim Wade tamit il a été victime de de l'explosion de de de de Karim Wade ampleur bi nga xamante ne commencé woon na ko am influence bi nga xam ne xëy na commencé woon na ko am aux de son père ak euh, aussi au sein du parti ndax tey. mën nañ xalaat président Macky Sall waxtaan ak Karim Wade euh, banaan da koy placer wala sax jël Idrissa Seck placer ko biir bennoo te sachant que ne moom ay ay nitam yoo xamante ni moom ils ils sont fidèles bi nga gaay yëpp meree daanaka euh, bàyyee ñoom ñoo ànd ak moom ndax loolu tey xel mun na mun na nangu président def lool ndax su ko defee ce ne serait pas aussi trahir la confiance de ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon biir bennoo. non mënul nekk non du loolu parce que soo xoolee par exemple Senghor. bi ko ñoom Lamine di jëli di ko fi indi dafa àndoon ak Lamine Gueye benn mooma bu ñu demee ba diggante bi te pourtant bi muy jël di choisir son premier ministre dafa jël Mamadou Dia def ko numéro 2 te pourtant Lamine Lamine Gueye moo ko fi jël Lamine Gueye def ko président de l'Assemblée nationale donc institution yi noonu la des fois da ngay ànd ak nit mais nit boole la ak nit nga am ak kooku relation yoo xamante ne ki leen boole sax amul leen relation boobu loolu sa n'a rien à tey su fekkoon ni par exemple defante ndax defante rek kon Idrissa Seck ak Macky Sall du ñu toog parce que en 2007 bi ñuy jàpp en 2000 euh, c'était en 2004. 2004 bi ñuy wàccee Idrissa Seck ba ñu koy tëj mais tey président Macky Sall moo toogoon woo ambassadeurs yi ne leen lii ak lii ak lii la def. donc est-ce que tey Idrissa bu ñu waree toog bu international kii bu ñu waree toog ñoom ñaar xooluñu loolu yëpp xoolu xooluñu kii boobu dañu jël loolu teg ko de côté ñu continuer waxtaan donc ñun itam je pense que situation bi comme toll na fii si seen diggante su fekkee ñoom dañu bëgg a diriger loolu la ñu war a def mais leneen lu ñu def lu nekk rek dañuy gis nguur gi rëcc seen loxo dem ci loxo keneen. léegi le le le du président et le futur de la coalition Benno Bokk Yaakaar lan la war a nekk. pour juste préserver déjà la la la coalition ndëgëlaay yi nga xamante ne am na ko ak longévité bi nga xamante ne quoi qu'on puisse euh, coalition bi am na ko président instant yi moom ci ci ban taxawaay parce que on nous de vendredi ou dimanche en tout cas balaa semaine bi jeex président war na ne diw laa tànn. Mhm. ndax diw boobu noonu muy tànn ak ëllëgu Benno Bokk Yaakaar lan la war a nekk diw boobu su ñëwee ndax mën na soppi turu Benno indi beneen tur wala ndax mu Benno lay wéyal. mais xam nga sax du je ne pense pas mu war a nekk turu Benno. parce que su nekkee tour Benno doon na nekk su fekkoon ni Macky Sall moo continuer woon dafa doon doon nekk une continuité légitime mu garder Benno bi mais beneen président bu ñëw keneen ku ñu munti tànn su ñëwee indi loolu day day day changer tur bi turu coalition boobu moom je pense que coalition bi c'est l'une des plus longues coalitions de la mouvance c'est vrai mais je pense que coalition bi fu mu toll nii moom euh, mbaa du Sénégal dañ cee doyal. non waxuma la sax Sénégal daf cee doyal mais contexte bi ci boppam moom moo changé fu mu toll nii pour coalition boobu war a mun a dem. mais mais loolu nag su donc li ñuy wax naan euh, Benno tire à sa fin ndax du lool mooy mooy mooy réalité. bi aussi mais loolu mooy réalité loolu c' la réalité xam nga xam nga tu le président de la République. des fois da ngay gis quand en entends wala nga que tu vois certains de ses collaborateurs ñu taxaw ci télé bi di wax da ngay yaakaar ni dañu nekk ci ñaari Sénégal. parce que man mënuma gëm ñu nekk ci Sénégal bi ñuy ñëw di wax yenn yi nga xamante ni parce que nit ki aussi xam nga honnêteté intellectuelle dafa baax ci nit mhm. nga ñëw nga taxaw président de la République nga am audace su ne ko voilà voici la la situation monsieur le président <laughs> je vous présente ceci vous avez l'option un deux trois metti na mais lii moo fi nekk mhm. situation bi tey soo demee comme renseignement généraux yi ni ñu koy defee des fois ñu wax ko loo xamante ne du neex ci xol mais loolu mooy réalité soo demee ci réalité da ngay dugg fii soo fi duggee du baax ci yow mhm. donc il faut collaborateurs yi aussi di ko wax loolu parce que des fois ces décisions dafa yéex de sorte que day dem ba nit ñi doyal ci décision bi su ñëwee lu ñëw rek baax du saf du safee mhm. alors non conseil président la